tous les activistes. Alors aujourd'hui, ce qui s'est passé, vous l'avez vous-même constaté. On devait aller ensemble, mais moi, malheureusement, à la dernière fois j'ai eu un PC à Thiès. Euh, c'est euh, en cours de route. On m'a dit que voilà, il y avait des, des, des, des agressions euh, au niveau des gamin euh, subies par les camarades de euh, Et nous condamnons cela. Donc, on ne va pas parler beaucoup. De toute façon, euh, nous allons retourner à Niamey et nous allons être partout. Et cela ne va pas marcher. On ne va pas nous priver de la liberté de parler. On ne va pas nous priver de la liberté de dénoncer. On ne va pas nous priver de dénoncer les feuilles fonciers, les bandits fonciers. Vous avez en face de nous une jeunesse déterminée et prête pour donner leur vie, rien que pour libérer le peuple man dama bëggoon wax euh, cofeel bi nga xam ne moom laa am ci euh, suñu doomu ndey suñu camarade euh, kilifa waaye cofeel bi nga xam ne moom la ñu am ci tous nos camarades de Y'en a bi nga xam ne moom la ñu am avec tous nos autres frères de tous les autres mouvements de toutes les autres organisations politiques et cetera ndax taxawaay bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy am ci réew mi Sénégal mu ngi soppeeku lii am tey ñaan yi lenn lay dégg la peur a changé de camp depuis très longtemps mais la peur continue mu continue continuer de ngëpp ñi nga bandits fonciers des voyous fonciers des gangsters fonciers des mafiosi fonciers et donc comme Nico ko de il y dinañ continuer réunion réunion am Il y a continuer conférence de presse conférence de presse à na Et mais dañoo a des petits ci Sénégal faut ramener tout le Sénégal rongañu

neexoo bi am diggante waaso yi mhm. xot ci neexoo jàmm bi dox diggante euh, diine yi ak tarixa yi mhm. li ñu tiital mhm. mooy jàmm jóge ci réew li ñu tiital du lii nañ ñu dóor nañ ñu rey nañ ñu gaañ nañ ñu handicapé li ñu gën a tiital mooy Sénégal nekk handicapé li ñu gën a tiital mooy ñu xot ci Sénégal li ñu gën a tiital mooy ñu que nous avons installé ce dañuy nous suñu au Sénégal hum. dans un cycle de dañoo utilisé ay policiers ci février à mars Mais hum. ragal naa ne hum. ils vont utiliser des nervis Et ils ne vont pas hésiter à rien foofu la ñu toll moo tax nous sommes tous interpellés ah, en tout cas am nous loo xam ne ñu ngi ko doon ñàkkal fayda ce n'est pas Guillaume Marius qui est en danger Ce n'est pas le rap qui est en danger c'est ça que je voulais dire nous sommes tous en danger et nous sommes tous en sursis

il ne faut pas qu'il nous pousse à li ñu bëgg mooy. suuf si nañ ko pencoo. coowal suuf si nañ ko pencoo. te bàyyi di ko paccoo. li ñu tax a jog mooy. coono liggéeykat yi nañ ko pencoo. te bàyyi di noot liggéeykat yi. lii daal laa amoon li may wax. di dalal xelu ñëpp. sonn nañu rek. waaw xëpp nañu suuf saaga nañu dóor nañu buntu xatal nañu ci kanamu nag ay gendarme. loolu moo ci gën a ñaaw. moo ma gën a tiital man. li tax mu gën ma tiital du ñun y suñu ay mbokk Parce que lui, il ji ci xelu ñenn ci citoyens sénégalais Les mm. gendarmes sont dafa gens, mm. et donc lu ñu parce gendarme sont mm. des ñun d'accord ñu ci loolu dañoo jàpp les gendarmes sont nos mères sont nos pères sont nos frères sont nos sœurs sont nos enfants Ils mm-hmm. doivent war protéger Parce qu'il bu amee que que l'institution qui est la gendarmerie se rend complice que inerte musuma gis gendarmerie bu handicapé comme bu tey ñun nous sommes en place su ñeneen ñi nous sommes tu t'imagines nous def ñu lii benn grenade lacrymogène ci c'est extrêmement grave la la gendarmerie est là pour tous les citoyens sénégalais la police est là pour tous les citoyens sénégalais hum, hum. lii daf ñu tiital hum. waaye ragaluñu président Macky Sall si ça ça continue même yow di nga di nga bëgg a doxantu ci Sénégal mu tënk dama bëgg mu leer de président Macky Sall lii buñ ko defee kilifa buñ ko defee caat buñ ñu ko defaatee di nga bëgg a doxantu ci Sénégal yow président Macky Sall mu tënk ñun nag niw di doole yi mooy des citoyens sénégal yoo xamante ni xam nañ leen di leen gis sur le terrain imaginez bi pacte bi bi corps chrétien yi commencé ba ni mu jeexee Guy Marius musul dogoo këram

pour vous sénégalais nek bëtam Khonk, mu sentir la présence de Guy et de Kirif et les autres membres de FRAPP et de Y ils a marre dinañu fa teew ci kàttanu yàlla ak mbaaxam seen menaces du voilà. la lutte continue voilà la lutte continue la lutte continue allez la lutte.